أعوذ بالله من الشيطان الرجيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته yéen mbokk yi yenn xarit yi yéen soppe yi yéen jaamu yàlla maa ngi siyaara ku nekk ci yéen te ku nekk ma di ko jox xàqam la mu yelloo la baax ci moom te di leen yëgal ne seen mbokk mi Cheikh Ousmane Pouye Tadjidine mooy waxtaan ak yéen bala waxtaan bi commencé nag ma jëkk wax alhamdulillahi alhamdulillahi alhamdulillahi ñetti yoon ndax liggéey bi ñu doon liggéey rafet na teguna ci yoon waaye boo liggéeyee ba mu baax mbul ko sàggane bi maanaa li ma nar wax réew mi teg nañu ko ci loxo yu jub fu mu toll yal na yàlla xepp te dolli ba loolu ñu mébét ñu yaakaar ko te bugg ko yàlla dolli li ñu ko te mu nekk ak ñun daa iman abadan toujours rek rek léegi balaa ma dugg ci waxtaan bi may ñaanal suñu mbokk yi dem al axira yàlla may leen gudd ci àllaaxira gudd fan mooy lan mooy ñu dund dund gu rafet foofule bu rafet rekk gudd am na waaye bu dund ba rafetul gàtt la bi maanaa du nekk ci seen baneex li ma nar a wax mooy ni yàlla yàlla may leen àjjana fa la suñu mbokk yi suñu soppe ya suñu papa ya suñu maam ya suñu xarit ya suñu àndandoo ya yal yàlla def leen ci jannatun tajri min tahtiha al anhaaru xaalidina fiha abadan abada allahuma amin ya rabbal awn yàlla mi nga xam yaay dimbalee yàlla nga dimbali leen allahuma amin waaw waxtaan bi tey gannaaw bu ma sant yàlla Macky dem na yoonam mais makki demul ndax soo gisee ma nar leen leeral dara mooy ku téléphone yi bari ne ci yeen Macky la nekk ci xelam mooy muy pexey naka lay yàqe réew mi naka lay bouleverser nguur gi naka lay fexe bi indi nitam teg ci bopp réew mi yéen ñi nekk Amérique nekk kanada nekk Afrique nekk urop nekk fu nekk fu nekk ngeen nekk fa ku téléphone yi bari ne ci man waaye faamaa bi ni mati rabbika fa haddis yàlla mu ne xewal yi ma leen jox na ngeen ko di waxtaanee di sant yàlla kon ku téléphone yi xewal la waaw bu ma tontuwul ngeen baal ma xëj na dama ko déggul walla gisuma ko maanaam message yi bari na ku ma ci yéex a tontu bu mu mer suma xol mu ngi ci yeen fu ma toll Macky ngeen ne dafa am ñu mu àndal Macky ku mu neex na ànd moom ngeen dafa ànd ay yahut mane ne bàyyi leen boobule kàddu yahut yi boo seetoo ñoo gën a niw doole ci monde bi xam nga seen cousin yi cousin yahut yi dafa mel ni nga ne joola ak sereer wala soose maanaam lakkkat yi xam nga ñoom yahud ak arab cousin lañu ndax yahud yi wax ishaqa ishaqa moo jur yahudi yi ismaila jur ibrahim mën nañu wax sax ne ñaari frère lañu ndax ñoo bokk papa nabilaay ibrahima moo jur Isaaq moo jur Ismaïl nekkuñu fi di gàmmu wala di waxtaan wala di màggal dafa am lu ma ne bugg a leeral yàlla nag def na xam-xam ji ak jàng bi mu jox ko naar yi arab yi wut alal nag mu jox ko nag yahud yi léegi Macky bu ànd ak ñoom yahud yi bu mu leen tiital yéen waa Sénégal yéen leen jëkk xana xamu ne afrig moo jëkkay Nabila Ibrahima yonent yi di bàkku yépp tey ji ñu di leen tëgg ci kaw suuf si afrig moo leen jëkk uppaleen histoire uppaleen man-man uppaleen xam-xam léegi bu nekkee ki dafa ànd ak groupe boobule pour muy jéem a pexe yi pour ñu jéem ko yàqal Sénégal day tardé ndax boppam la du mën dara ci Sénégal Sénégal dem ba barki dem ba yàlla aar na ko ak ñu baax ñi nga xam ne ñi tey dañ leen yaakaaroon ñu tëdd ci biir Sénégal malgré nag seen gannaaw nekk artificiel seen gannaaw nekk artificiel nga xam amul benn tànk amul bopp waaye nag yàlla ni yàlla xeeb te dolli te may leen jub léegi Sénégal musiba yi ci amoon yàlla ni yàlla bu mu amati te ñu góorlu conseil bi may jox Macky mooy fa mu toog na fa toog jàpp njàmburam di baalu yàlla fu mu tollu ndax waa Sénégal bu ñu ko baaloon tey dama leen ne yàlla moo ko war a jox amnistie yàlla moo ko war a baal mu baax ci moom te yàlla mu ne ku rëy benn bakkan fa tabarakallah foo tollu ma teg la mbugal waaw nga rëy nag ay bakkani bakkan waaw yenn Ousmane Tounkara ak yenn Cheikh Anne yéen Ousmane Drama Ousmane Dramé du mën a nekk di wëñña ndax yéen ñiy waxtaan ci bitim réew diaspora bi fa tabarakallah yal yàlla xeeb leen te dolli leen bu leen tiit bu leen ragal du ma nekk di ko surwaaye <clears throat> ndax dafa ànd ak yahut yi déedéet ndax ñi ma yore ñi ñu yore ñoo leen uppal doole ñoo leen man te xamul ni ñooñu léegi ñu jóge ci kaw suuf si bu ñu moytuwul léegi ñu jóge ci suuf si ñoo ngi jàkkaarloog puissance boo xam ne xamuñu lan la kenn mënu leen défendre kenn kenn kenn mënu leen défendre waaw waaw kon nag Macky na nga xam ne nit na nite yow Sénégal yi jox nañu la réew mi nga def jëf yoo xam ni yi adduna bi yëpp ñoo ngi nekk di ci coow te dañu ne yére yu salte nañ ko fot ci diggante mbokk boo amee jom am fulla am fayda am personnalité mbul jéem a jëf benn pexey teg ko ci kaw sénégalais ak sénégalaises yi danga koy riccu yow fi nga nekk na nga tal sa bopp ndax Sénégalais yi dafa am loo xam ne li dox na sa diggante ak ñoom incha allah foo jaar war nañu ko toppatoo teg ko ci yoon waaw bàyyil nga ñu nag ay pou mooy melentaan yoo xam ne maar day taal yi fu ñu dugg dañu koy yàq di ko lekk yow nga formel ñu nit ñoo xam ni fa tabaraka bu ñu sa ñooñu yëpp génn Sénégal tey yow nag boo nekkee da ngay pexe yi ñu ne da nga ànd ak xaw ma lan ay groupe bu naar yi ñoo man juif yooyu bu ñu leen jàppee du ñu mate bu loon Amérique ne moo nekk ci gannaaw di tëgg ndand rek di wax lu ko neex ak européen yi ñii dootuñu teg seen kaw ci kaw suuf naaw nañu jeexal nañu te déglul xoolal tuuti fi ak jamono dootu leen dégg fenn ci àdduna maa la ko wax ba ñi ngay pexe teg ci kaw sénégalais yi ak sénégalaises yi léegi Ousmane Diomaye li may jëkk wax yal na yàlla aar leen te dimbali leen yal na yàlla may leen gudd fan ak wirgu yaram tii lii lii ma leen di ñaanal yàlla defal ko sénégalais yépp ñépp mu defaleen ko bu leen tiit comme li ma daan wax rek mu leen ragal boo seetloo suma waxtaan yu jëkk ya dama ne yéen ñi nekkoon ci kaso bi di ngeen génni te feetu leen ngeen feetu te défilé ci biir réew mi seet leen suma histoire yi ma daan wax toujours di ngeen ko fa fekk te kat fête bi commencé gul ndax fi ngeen nar a yóbbu Sénégal ñépp nañu baneexu mag ndaw góor jigéen ñépp feetu loolu laa leen di ñaanal loolu laa ñaanal ñépp Ousmane Diomaye yéen membre de gouvernement ku nar a diriger réew doo tiit doo lox doo jaaxle ndax yàlla mi leen ko jox daf leen boole ci waa karam xanaa nga ñëw yàq kër gi te am naa confiance yéen totale du ma am benn werante waaw te amul benn seytaane bu mën a ñëw jaxase suma xol allazi yuwaswisu fi suduri naas min al jinnati wa naas kenn mënu ko ci kenn mënul jaxase suma xol ba ma am sig sax ci yéen fa tabarakallah léegi Macky yaa ngi jaaxal ñu bari ci réew mi ndax ñi àndak yow di pexey lépp lu ngeen pexey dinañ ko xam nda yàlla mi nga xam ne bi alimul xaybi wa shahada kooku mooy xamal doomu aadama lu ñëw ak lu ñëwagul ak lu passé yàlla moo koy xamal doomu aadama yemal toggal tëddal nga bàyyi doomu aadama yi surtout sénégalais yi pexe boo ci yëkkatiwaat rekk sa kaw lay kapp na nga xelaat nooy raxasee nooy foote sa bopp ci lii passé ndax yaa ngi dem ak tilim ndax ku rëy ku taje ku sos di fen yooyu yëpp dégâts la waaw jaraim la jaraim ay musiba ay bakkaar bu nekkoon yoon dagg dafa am dañ la war a sànni ay ahjaar ay xeer mu nekk ci xajar yoo xam ni yii safara lañ koy génne mbugal la toroxal la waaye nag doomu sénégalais ku bari yërmande la gàcca nga la ma yéen waa Sénégal yàlla yàlla defalee li ngeen soxla ci àdduna ak alaaxira léegi e bu leen tiit ci Macky Macky pepp la xardal la du dara ci Sénégal lu tuuti la incha allah nit ñu baax ña yàlla ñu aar ci seen barke commencement ci yonante yu jëkk ya ba ci ñoom xaadimu rasul ñoom alxaaji malik radiyallahu anhum yal na yàlla yërëm leen yàlla baal leen ngir yàlla ñu ngi la koy ñaan nga may leen àjjana na nit nit rek lañu waaw waaw tey lu baax rek lañ doon wax témoin nañu ko ndax gis nañu li ñu bind bàyyi ko fi waaye nag dafa am ñoom ci gannaaw ñooy nekk di jéem a falsifier di jéem a firee neneen waaw waaw baaxul baaxul baaxul kon gaañu baax ñi lii rek laa bëggoon a wax pexe yi bari na ñoo ngi pexe yi léegi nag waaye nag nguur gi ak Ousmane dinañ teg incha allah justice boo xam ne bii ñépp dinañu ci mën a dugg a génni kuset nga génni kusetul ñu nga nekk ci biir loolu rekk la kon gaañu baax ñi da ngeen ma woo di ma poser question ci Macky Macky dem na incha allah may leen may leen Ousmane ak Diomaye ak nguur gi fi nekk ay weer ñu toppatoo li ñu war a toppatoo ñi amaguñu sax benn weer ci nguur gi ku nekk di wax yàkkamte lool jaru ko jaru ko na ngeen bàyyi ñii ay weer ñu mën a toppatoo istale kër gi tabax bala nga ci dugg dañ koy tabax ñi commencé guñu sax ngeen commencé yàkkamte di wax maki maki ñu bari seen bind yaa ngi nii lu to ñu bayyi maki mu dem jàppuñu ko maki dafa na ra jaxass rew mi ak groupe bi mu andal ak bandi mu andal ñong leen di xaar préparé nañu leen waaw maki bu inde yahudi ñu indi nar yi indi wa afrique ñu mom kon gaa ñu baax ñi maa leen di wane ne asalaamualeykum wa rahmatullah wa barakallahu wa barakallahu wa barakallah yal na yàlla dimbal ñu shukran lakum wa aqul lakum insha allah ila liqa sanaltaqi qariban fi maydaanul xaqi nag ci terrain de bi nga mooy terengu wu dëgg waaw amul lahabun amul benn benn benn caaxaan dëgg rek moo fay nekk Ousmane jomaay hayyakumullah wa aqul lakum assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuhu jàngeen jëfati